barab bi it namoon la lool suuf si namoon la mboolam it namoon la waaye yitte yi xat na xataay boo xam ne xam nañ ne bëgg noo dimbali ak bëgg noo xet li rek moo waral jéego yi waaye du sag jot du sag féex du sag yaatu noonu la ñu ci turu Basiiru mbooloo mii nga xam ne ñoom la àndal ñu di la siyaara si mbooloo la moo xam ne moom mooy seen jëwriñ di kenn ci yow ndax jegesal bu baax mu ne. ñi ngi tàmbali woon siyaar bi bis bi nga xamee ne yaa ngi dem ci alxaaji Baara doon ko jébbali caabi yu jumaa yi daarul minan boole woon ca adiya ji tëdd ca boole woon ca bis booba la mboola mi amoon pas-pas di la ca doxin woowa doon ko siyaare si moom it ginnaaw ñu am yitte ak xemam te fi def ko bisu siyaar boo xam ne at mu jot ñu siyaare si ko bisu mbooloo dogale ñu digg la fi nag nga ñëw mbul ñu amoon pas-pas bis booba ñu def see ko fii sa kanam. mu doon ab siyaara bi ndax fu mu mën a siyaara ji kooka yow lay siyaara si waat yaay leen jabatu ñun ñëpp sëriñ Basiiru mooy seen jëwriñu ànd na ñoom ak ay lenn ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci biir mbooloo mi bokk na ci sëriñ Modou ak sëñ Pape Mbuub ak Alhaji ak sëñ Sidi Jenn sëriñ Sidi Jenn ak Cheikh Ñaan Masistra ak njabootam moom it ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mbooloo mi Cheikh moom mooy président tribunal d'instance bu Mbàkke ñëw na ànd ak njabootam gépp gunge si sëriñ Bassirou ci siyaar bi nga xam ne moom la ko ñi nga xam ne mooy seen jëwriñ daan siyaar si at mu jot ñu jël siyaar ba bépp nag def ko benn ndax sa jëmm ji tëdd ji rek mooy ki ko yooyoo noo nga lay siyaar bu baax ci turam moom mii ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal di la wax mas sa di la wax jërëjëf di la wax ndokk sa di la ñaanal suñu borom mu yàggal la fi te wéral la dolli la ndimbal dolli la sutura wammatal la boppam ci barkeb Serigne Touba ba fépp foo bëgg liggéeyu Serigne Touba bi àgg fa suñ borom dogal loolee am te ñu ànd koog yow ñoo ngi lay sant bu baax Serigne Bassirou nee na mbooloo mi nga xam ne mooy seen jëwriñ mi ngi nos buum gi nos ci bakkan boole gi ci boppam tegaat ko sa loxo di yeesal seenu njëbbal tey jii fi sa kanam di yeesal seenu njëbbal di yeesal seenu njuréel te lépp nag ko tënk ci ak taalibe ñoo ngi lay joxaat bopp joxe gi joxe boppam joxe waale na boppam képp koo xam ne mooy sa jëwriñ njëbbal googu ñoo ngi yeesal bu baax te yalwaan nga nangul leen ko noonu mi ngi yóbbaale it mboolem taalibe mbir yëpp ci biir njëbbal googu ak yeesal googu ñu yeesal seen taalibe di siyaar bu baax baax ndax ab taalibe deful lu gën a ñor di siyaar ab sëriñam ak di ko wut addiyaam ak di ko ñaanal yàgg fi da wér mais mi ngi sàkku ci mbooloo mi fi teew ñun ñëpp kenn ku ne wax ci ab ab xolam ak ci am xelam ak ci aw làmmiñam ñi nga xam ne ci lañ koy déggee suñu borom yàggal la fi te wéral la ñaan gu dëggut suñu xol goo xam ne duñ ko wax ngir dañ koo tàmmal seen lam waaye ñu wax ko wax gu dëgg suñu biir xol ngir yéene guñ la ko yéene ak xam guñ xam bu wér a suñu borom bu la fi yàggalee suñu njëriñ lay doon ñun ñëpp doon njëriñul jullit ñëpp yàlla na la fi suñu borom yàggal te wéral la àggaleel la sa liggéey ak say naal ak say te àggaleel na ko ñu nit ci yow ci barkeb Sëriñ Tuubaa lépp lu des ci kàddu yi tu nun yàq solo ñii la dese waaye sëriñ Basiru jot sëkk lu mat sëkkit la wax njaboot gaa ngi nii jëmmam jaa ngi nii moom it noo ngi lay seeraat ci moom ab taxawaayam ci barab bi ak ci tund mi ngi ci li mu war mel na yit ni mu war a ni mu war a mel xeebul yittee kenn lépp lu mu yëkk ci biir barab bii di Touba ak li wër Touba Mbul dana ka nga xam ne moo ko ko yëgal dana yëg ne sëñ bi yitte woon a yitteem mi ngi ci li mu war a nekk woyof na toy yaatu na lool te it xeebul kenn mu mboolem lu ko war ci diggante mag dëkkandoo yi ak ci biir dëkk bi mi ngi ci li mu war a nekk xooluwuñ ko nag doomi sëriñ Muntaxa waaye sa jëmm ji tëdd yii lañ koy xoole ndax ndaw lu ne day amee daraja yi ka ka ka ko yebal sa jëmm ji tedd ji la xool ci moom moo tax xëy bu ñu ko fenn tey bu ñu ko defoon duñ ko teg fenn sa jëmm ji tedd ji xool ci moom tund yëpp it loolu la xool ci moom sa jëmmi sëñ Muntaxa la xool ci moom waaye xooluñ ci moom doomi sëñ ci nun ak ci dëkk bi ak sant bu baax tey jégalu bu baax ci guddal gi asalaamaaleykum wa rahmatullah di rafet na lool ñu bàyyi ko ci sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ bi nee na dégg na ko mi ngi leen fay am nuyoo yéen ñëpp sëriñ Mahdiou sëriñ bi nee na dégg na kàddu yëpp. nee na dégg na ko déggu xol waaye dégg na ko déggu xel. mu ne waaye dégg na ko déggu bànneex gu mat sëkk. mu ne ci seen ànd bi ngeen ànd ak Cheikh Mahamadou Bachir mii. sëriñ bi nee na am na ci bànneex bu rëy a rëy nee na bànneex boo xam ne mën na koo wax ci làmmiñam mu ne loolee daf koy delloo ci bis bi nga xam ne ci la ko Cheikh Mahamadou Bachir joxoon ndigal moom mii Serigne Mountakha ngir mu ñëw fii ci dëkk bi. mu ne la ko jiitu it fii la ko indi fii ci Touba Mboul. mu ne fii la defee lépp moom sëriñ bi. mu ne kon nag ak cantam. ci tax ci taxawaay bii ngeen taxaw ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Mahdi waxee mu ne loolee cant gam ci am mu ne suñ borom mi ko def ci moom moom rek moo ko xam mu ne Cheikh Mamadou Bassir mii nga xam ne moom moo joxoon sëriñ Mountakha ndigal fii ci Touba Mbul muy dëkkuwaayam. mu ne kon cant gi yëpp daf koy delloo ci moom di ko sante suñu borom mi ñu boole ak moom mu ne di ko sant cant goo xam ne amul fenn fu mu yem mu ne loolu lépp nag li firndeel cant gi mooy seen taxawaay bii yéen waa Touba mu ne àgg na ci moom fu sore sori moom sëriñ bi delloo ci fa ma jóge mu ne seen taxawaay bi daf koy delloo moom sëriñ bi fa mu jóge woon. lépp mu def ko cant ba ni ma ne lépp mu def ko ak cant ba mu agsee fii. mu ne kon ngeen xam ne moom mii sëriñ bi xolam sedd na guy yi. mu ne dolli ngeen ak yaakaaram. mu ne xelam it gën naa dal. ci seen taxawaay bii mu ne loolee taxawaay bi sor na ci moom lool. nee na mi ngi ñaan bu baax a baax. mooy mi ngi ñaan bu baax a baax suñu borom gën ñoo gàttandoog tawféex sëriñ bi. ci seen lépp nag. ci seen biir ci seen biti. ci seen tey seet ak seen tey ak seen ëllëg. mu ne bu ñu ko gàttandoo. mu ne suñ lépp dana defaru. dina defaru ci suñ biir. dina defaru suñ bitti defaru ci dunduk àdduna gi mu ne ñu gën a am defaru ci dunduk ëllëg mu ne kon loolu mooy yéene moom sëriñ bi mu ne mooy yéenam ci képp ku mbokk sëriñ Tuubaa mu ne ngeen xam seen bopp loolee kenn jiitu leen ci yéen ñii gën mu ne mooy gën a fas yéene feeñal ak jaayanteem di leen ko seeral. di seereel. mu ne di gën a feddali ak laxasaayam di leen ko seereel. fas yéene ko ànd ak yéen. fas mu ne loolu rek lañ ko mën a joxe ak xam loolu rek lañ ko lañ ko mën a sante kon nag jërë ngeen jëf yàlla nañu suñu borom gën a am ndox ndox yu sëñ Tuubaa dañ mën a sax ci jaamu yàlla suñu képp kàttan liggéeyal ko sëriñ bi suñu képp kàttan jërë ngeen jëf mu ne loolu rek moom la doon wax bi nga xam ne moom la moom la fi nekkal man lu nekk ci xolam li nekk jàpp xelam mu ne loolu rek la ko mën a béyalee suñ diggante ak yéen ñu fas yéene ko am rek nag incha allahu rabbi mu ne ñu ngi leen di càkk càkk bu rëy rëy rëy seen càkk bopp mu ne yitte ji nga xam ne am ngeen ko ak taxawaay bii nga xam ne def ngeen ko. mu ne loolee moom la ñuy cat cat boo xam ne amul yamuwaay xanaa ko seeral Serigne moom mii soxlu la Serigne bi soxla moom lañ soxla tey moom la soxla ëllëg.